الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد mbokk jullit yi suñu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy yàlla moom mooy buur di boroom mbindeef yépp jaam ñépp lépp lu fi nekk ci univers bi rek yàlla moom moo ko moom yàlla moom moo koy doxal yàlla moo sàkk mbindeef yépp yàlla mooy doxal seen lépp mbir subhaanahu wa taala lépp lu yëkkatiku wala mu wàcce rek ci ndogalu suñu boroom subhaanahu wa taala la amee moom moo wax ne moom moom nga xam ne mooy suñu buur di suñu boroom moom mooy ki nga xamante ni moo sàkk asamaan yi sàkk suuf ci juróom benni fan daal di féete kaw arsh féete kaw jaamam ñépp féete leen kaw ci jëmmam féete leen kaw ci nguuram sañ-sañam féete leen kaw ci ay melokaanam subhaanahu wa taala moom yàlla subhaanahu wa taala moom mooy jël guddi gi muur ko ci bëccëg bi te buy ñëw sax nit ñi duñ ko yëg loolu di wane dox ki nga xamante ni àdduna bi da koy dox ci rotation bi nga xam ne nekk na ci di jëmmal fan yi nga xam ne moom la ñuy dund semaine yi ñuy dund weer yi ñuy dund at yi ñuy dund loolu di àpp bi nga xamante ni def na ko fi muy àpp bi la ci jumb la ci junj bi mu ne yuxshi layla nahaara yatlubuhu xasiisan mooy am na àpp bu mu fi def boo xam ne duñ ko weesu moo xam ñun ñi nekk ci biir wala moo xam jëmmi àdduna bi ci boppam waaye ñëwam duñ ko yëg ndax bi mu ne yatlubuhu daf ne xasiisan muy changement boobu di am ak dox boobu nga xam ne da koy dox guddi gi di dem bëccëg bi di ñëw dafa nekk lu discret loo xam ne du ngeen du ngeen ko yëg moo tax mu ne xadiisan moom yàlla subhaanahu wa taala moom moo tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat lépp loo xamante ni moom moo fi nekk ci kaw suuf moom yàlla moom moo yor doxam moo tax mu ne alaa lahul xalq wal amr mooy ki sàkk waaye tamit mooy kiy doxal mooy ki tàggat moo tax mu ne tabaraka allahu rabbul alamin yàlla moom subhaanahu wa taala ku bëri yiw la lépp lu mu def rek lu baax la moo tax mu ne tabaarak mooy lépp lu mu def moom yàlla lu baax rek la te moom mooy borom jaam yi mu bokk ci xereñub yàlla subhaanahu wa taala li muy yor yor mbir yi di ko doxal da koy def ci façon bu naturel ndax daf ñu fay indi teg ñu fi ci kaw suuf teg fi ay loi yoo xamante ne ay loi physique lañ koy tuddee am lu mu fi def lu ñu tuddee nature nature bi mooy mbir yi ni mu nekkee nii ni ko yàlla defee tàggatal ñu ko ñuy dund ak moom di ànd ak moom li muy dogal tamit bu ñëwee dafay ànd ak loolu du ñëw di ko jalgati jalgati boo xam ne daf ñuy déstabiliser léeg-léeg am ci lu ñu tuddee xaariqu aada mooy léeg-léeg ñu gis lu xotti mbaax lu xotti mbaax mooy lu daawul faral di am am waaye bëriwul léeg-léeg yàlla def ko waaye li ci bëri buy def dara da koy jaarale ci ni àdduna bi di doxee ci la koy jaarale mooy da koy jaarale ci ay sabab ndax suñu mbir yépp yàlla da koo def ci sabab la ko jaarale lépp lu ñuy def rek ci sabab lay jaar mais nekkul ne jëmmi sabab ya ñoom ñooy def waaye am na yàlla joo xamante ni moo nekk ci ginnaaw sabab ya di tàggat sabab yi ak di dogal ci ginnaaw sabab yi waaye léppam da koy jaarale ci sabab loolu la suñu borom subhanahu wa taala junju ci alquran ci ay bërëb ñu ciy tudd ñaar benn bi mooy bi muy wax jaamam bu màgg bu tedd boobu di dul qarnayni mu ne yonente bi alayhi salaam wa yasalunaka an dil qarnayni qul sa atlu alaykum minhu dikra ñu ngi lay laaj dul qarnayni dina am lu ma leen wax ci mbiram ndax yàlla daf ne inna makkannaa lahu fi l ardi wa ataynaahu min kulli cheyin sababan yàlla moom moo ko mayoon kàttan ci kaw suuf jox ko sabab ci lépp lu mu bëgg a def mu xam ban yoon lay jaar pour àgg ca bi yàlla tuddee foofu kàttan gi mu may dul xarnayni yàlla subhaanahu wa taala bi mu koy jox kàttan gi joxu ko rek loo xamante ni day jóge ci asamaan wàcc déedéet waaye da ko koo jaaraleel ci sabab yi nga xamante ni moom moo nekk fii ci kaw suuf mooy bu la yàlla subhaanahu wa taala di may nga mën a def dara daf lay tàggatalal sabab yi nga xamante ne moo lay àggale ci loolu waaye du jékki-jékki rek mbir mi ne jamet daal di am déedéet kon suñu borom noonu lay doxalee loolu warul tax nit ki naagu ba jàpp ne sabab yooyu noonu kooku di def mbiru yàlla nekkul ci ginnaawam ndimbalu yàlla nekkul ci ginnaawam comme ni ko ki gëmul yàlla di fooge ki gëmul yàlla moom bu gisee nit muy def mbir di ko jaaral ci sabab la cay juddee ci résultat moom dafa jàpp ne loolu lu naturel rek la lu normal la dafa sabablu résultat yi ñëw waaye ki gëm yàlla moom dina xam ne sabablu bi muy sabablu ndimbalu yàlla ak tàggatu yàlla mi ngi ci ginnaawam loolu moom mooy feeñaat ci bi yàlla waxee ci nuux alayhi salaam bi ndox mi ñëwee di labal waa kaw suuf yàlla defar loo ko gaal gi ne ko na ci dugg moom ak ñi ko gëmoon topp ko ak li fi nekkoon ci ay bàyyi ma mu jël ci bàyyi ma bu nekk benn couple mu dugal ko ci biir ndax loolu mën a juraat mën a meññaat ci kaw suuf dafa woo doomam ne ko kaay yéeg ci gaal gi te bañ a dem ànd ak ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla irkam maana wala takun min alkafirin bul dem di ànd ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo weddi yàlla yéegal nga ànd ak ñun doom ji def ne ko sa aawi ila jabalin yaasimuni min al ma maa ngi daw yéegi ji ci montagne bu kawe bële su ma demee ba ca njombaxtal la loolu dina tax ma mucc ci ndox mi mu ne yaasimuni min al ma montagne bi dina ma musal ci ndox mi mu jëfandikoo baatu ndox xoolal nuux bi mu koy tontu nuux def ne ko laa asima al yawma lays waxu na ko min al maa de def ne ko laa asima al yawma min amrillahi illa man rahim tey amul lu mën a musal nit ci mbiru yàlla ci ndogalu yàlla la ko nuux wax waxu ko ci ndox mi nuux neewu ko tey amul lu mën a musal nit ci ndox mi mais def ne ko tey amul lu mën a musal nit ci mbiru yàlla ndax nuux xam na ne ndox mii ñëw mbiru yàlla moo nekk ci ginnaaw du ndoxum kase doom ji nga xam ne gëmul yàlla moom dafa jàpp ne ndoxum kase la mu ñëw nekk inondation boo xam ni d'une manière normale et naturelle boo daawee dem yëg fu kawe inondation bi du fa àgg foofu la gis-gisam toll nuux mi nga xam ne xam na yàlla xam ne ndox miy ñëw mbiru yàlla la yàllaa ci nam ma alat jaam ñi ko gëmul moom xam na ni mbirum yàlla la moo xam ne amul lu mën a dox sa diggante ak moom lu dul yërmande yàlla moo tax mu ne laa asimal yawma min amrillahi illa man rahim loolu nekk benn différence bu nekk diggante jaam bi gëm yàlla di gis ne sabab yi ñuy sabablu ndogalu yàlla moo nekk ci ginnaaw ak jaam bi nga xam ne moom dafa matérialiste nga xam ne jàpp na ni moom matériel rek moo fi nekk nature bi kese moo fi nekk nit ki di ci nekk di kërti kërti lu mu gis ci résultat lu normal la loolu daf ñu yóbbuwaat ci mbir ci lu mu ñu yóbbuwaat mooy lan mooy ne suñu jëf yi ñuy jëf ci lu baax ak lu bon ñun jaam yi dafay impacter suñu dund dafay jeexital ci suñu dund suñu mbaaxu dund ak suñu bonu dund suñu neexu dund ak suñu naqari dund jëf yi ñuy def daf ciy jeexital loolu la yàlla di wax ci dëkk boo xamante ni yàlla joxoon na ko wërsëg joxoon ko xéewal wa daraba allahu mathalan kaanat aminatan mutmainatan yatiha risquha ragadan min kulli makan yàlla jox ko dund jox ko wërsëg muy dund dund bu neex waaye ñu weddi yàlla ba ñu weddee yàlla ci la leen yàlla subhanahu wa taala wuutalal seen dal googu ñu amoon ak seen xéewal googu ñu nekkoon indil leen ñàkk indil leen xiif indil leen tiit suñu borom wax loolu yonente bi alayhi salaam doon wax tamit benn bis dafa toog ñu romb ko benn néew di ko yóbbu mu ne néew bi day day mën a nekk ku noppalu wala ñu noppalu ci moom ñu toogoon ak moom ne ko loolu mooy lan mu ne leen jaam bi gëm yàlla bu faatoo day noppalu ci coono yi àdduna ndax àdduna coono kese la nit ki ciy dund nag yaram bi bëgg na ko bëgg goo xam ne xamul leneen tiit naa ñàkk àdduna waaye bu fi jaam bi jógee yóbbaale ngëm yàlla di fekk ji xéewalu yàlla ci lay xam ne ndekete àdduna coono kese la woon léppi àdduna coono la kon day noppalu ci loolu jëm ci yërmande yàlla waaye mun a jaam bi nga xam ne dafa weddi yàlla nekkoon fi di mooy yàlla moom nee na nit ñeeg bàyyi ma yeeg garab yeeg dëkk yeeg lépp dañuy noppalu ci moom bu faatoo ñoom dañuy noppalu ci moom mooy kon moom dund gu fi doon dund ci kaw mooy yàlla fitna la woon ci ñoom coono la woon ci ñoom loraangale woon loraangale woon ci ñoom ndax yàlla mi sàkk àdduna bi defar ko daf ñu ko tàggatal ngir benn xeetu nekkin mooy nekkin bi dëppook li mu bëgg loolu mooy li conforme loolu mooy li nga xamante ni moom moo dëppoo nose ak àdduna bi ni ko yàlla tëralee kon loolu moo mën a sàmm àdduna bi sàmm mbaax gi fi nekk ak xéewal gi fi nekk ak jàmm ji fi nekk bu jàmm bi wutalee loolu weddi yàlla tabax fi ay sociétés yoo xam ci kaw weddi yàlla ak mooy yàlla lañ ko ta lañ ko def nekk fi nekkin boo xam dafa safaanoog loolu du def lu dul yàq moo tax tey loo gis ci àdduna bi ñi ngi wax ci wàllu suñu civilisation moderne beeg nangam tey la àdduna bi gën a yàqu ñi ngi def ñi ngi dégradé nature bi di polluer àdduna bi di détruire àdduna bi di yàq li fi nekk ci façon boo xam ne mosul am ci histoire doomu aadama li ko waral mooy tey la weddi yàlla gën a tasaaroo ci kaw suuf tey la ñu gën a xeex diine tey la ñu gën a dindi diine ci nit ñi def ci ñoom weddi yàlla jaam bi nag bu weddee yàlla ba tinkeeku rébélé wu ci digg ci yàlla mi nga xamante ne bi moom moo ko fi indi woon ni ko yàlla nekk loo woon ci kaw suuf mu lànk bañ koo def nekkam fii ci kaw suuf yàq dong lay doon ñuy lëkkale loolu ak lan ci lan la ñu loolu di yóbbu li ñu wax nii ci lu mu ñu yóbbu mooy tey suñu nekk ni ñun suñu société bi ñu nekk bu ñu ko contextualiser dellu si waat ci Sénégal bu ñu xoolee li ñuy dund ci jafe-jafe ci wàllu métti dund seeru prix yi ñuy jàmbat fu ñu toll te saa su nekk dinañ ut benn excuse mooy lan tudd ñiy jiite wala ñiy def nangam wala ñiy nangam naam loolu mën na cee bokk mais du loolu dong léeg-léeg ay explication simpliste la mooy ne li nga xam ne dëgg dëgg dëgg mooy suñuy feebar duñ ko nangoo tudd ndax léeg-léeg courage bi du fi nekk muy pare pour saafara ko dëgg dëgg dëgg nangu ci lan moo ci suñu responsable duñ ko nangu ñun en tant que peuple suñu nekkin metti gi mu metti ak yàqu gi mu yàqu ñun kenn ku nekk suñu am na ci part de responsabilité moo xam ñi nekk ci ci bopp ci bopp réew mi la wala ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jiitu ñun ñëpp am nañ ci part de responsabilité nañu seetlu li nga xam ne tasaaroo na suñu réew ci loo xam ne war nañu mën a jural ay jafe-jafe ak yàq suñu nekkin ak mettil suñu nekkin bu ñu waxee yàqu gi ak metti gi ci ñaari anam la benn bi mooy loo xam ne kàmm la shay xissi la shay maddi la ak loo xam shay maanawi la daf ci am loo xam ne ci wàññeeku dund lay dellu ak lu bari woon néew loolu léeg-léeg dina am ci loolu mel na ay bekkoor ak yooyu mais am na beneen bu sew boo xam ne nit ñi duñ ci bàyyi xel mooy yëf yi mën na ne bari lool ne gàññ te du am njariñ la mu waroon jariñ du ko jariñ ndax yàlla day rocci barke ba day rocci barke bi ci ne nit ñi dootuñ ko jëfandikoo ci lu leen di jariñ day mujj mel ne li fi nekk ci alal dafay lor nit ñi dafay gën a yàq dund nit ñi sax ka gën koo defar ñu seetlu ci yi nga xamante ne bi suñu nekkin ci lu ñu war a jéem a góorgóorlu bu ñu bëggee suñu suñu suñu defar suñu suñu suñu réew baax suñu nekkin baax yàlla ne woon inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala suñu relation ak suñu borom kan mooy yàlla ci ñun fan lañ teg yàlla ban cër lañ jox yàlla ci suñum réew ndax jàppe nañ ko yàlla di nga xam ne mooy ki sàkk jàmm ni moom leen ñu wekk ko fonk ko jox ko cëram jox ko gëddam jox ko ay àqam ba duñ ca jël lenn di ko jëmale ci nit màggal ko ci suñuy xol ragal ko niñ ko war a ragal est-ce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi tàggat loolu suñu réew ñu ngi ko fiy def mu nekk fi ci nit ñi wala ndax yeneen lañ jël sol ko ci ci xoli jàmm yi ba ñu fàtte yàlla li jëntuwuñ sax kuy yàlla nañ xool loolu loolu jural nit ñi bokkaale boo xam ne foo ko natt weesu ci wàllu yaakaar ñaan ci lu baree bare bare ci ragal bëgg sori nañ lool fañ ca waroon teg suñu borom subhanahu wa taala nga seetluwaat tamit ci yooyu xeeti ñaawteef yi nga xam ba leen ko gisaat lu ko jege njabar ndax bu pas-pas yi baaxulee lan lay jur li muy jur mooy nit ñi sell sell gi war a nekk ci xol ak ci bakkan bu fi newulee ci seytaana yi rek la nit ki jëm dootul dimbali ko yàlla mi nga xam ne képp ku mu taxaw moom yàlla doy na la wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu nit ki day jël xolam lonk ko ci yoo xamante ni amul njariñ amul solo ndax li yàlla waxoon mooy wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum njabar ak gisaa nekk seet ak ya ci aju ni mu doxee suñu réew fi mu nekk nii ñi ko fiy def ay boroomi alal lañ ci liggéey yi gën a am alal bokk na ci ndax lan ndax nit ñi niñ ko gëmee ay boroomi cër boroomi maqaama ay nit nit yoo xamante ne ay kilifa lañ leen di tuddee ñenn ñi ci wàllu diine ñenn ñi ci wàllu àdduna seen lépp ci njabar lañ koy lijjanti seenub noonu bu leen neexul sax yaakaar nañu buñ ko waree lijjanti liquider ko wala dara ci njabar lañ koy defee njabar gi jéggi dayoo lool te du def lu dul may jinne yi seytaane yi doole ci kaw nit ñi ñu leen di yàqal seen diine di leen yàqal seen àdduna njabar gi tasaaroo ci suñu réew bokk na ci li gën a yàq suñu dund ndax ci ay problème rek la ñuy yóbbu ak ay doxalin yoo xamante ne baaxul mu bokkaat ci tamit ba léegi naanut sàngara bi consommation bi ñuy consommé alcool ci réew mi sàngara bi ñuy naan naan bu jéggi dayoo te di réew jullit loolu problème bu rëy sàngara bi yàq xel du nit buñ koy wax nit xelam moo tax xel yàlla buy wax ak nit xel mi lay waxal bu xel nekkatul ci yàlla waxatul ak moom yonente bi alayhi salaam nee na ku àndatul ak xelam yàlla waxatul ak moom julli sax yàlla def la du ko ko julli yàlla defalatu ko yaa ayuha alladina amanu laa taqrabu salata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun julli sax bul ko def kon bu nit di jëfandikoo ay sàngara ay xeeti borom kooku nit ku ko gën a suufee amul ndax yàq na xel mi nga xam ne ci la ko yàlla terale woon gën a la ko ci ko bàyyi naanum sàngara bi kan moo ko mën a ñiyee kan moo ko mën a weddi ci réew mi ñan ñoo ko fiy naan ñan est ce que xeex nañ ko ñun en tant que communauté jullit boo xam ne xam nañ ni am na benn feebar bu dugg suñu réew bu koy yàq ñu jóg jël ci ay matuwaay xool naka lañ ko mën a contrecarrer ba protéger suñuy doom est ce que def nañ ko ana kilifa yi ñaan ñoo ŋànk diine ji ana ñu ci yan yan yan initiative lañ jël pour pour sàmm diine Sénégal ana fan man ban jéego rek lañ def boo gis boo xam ne yow teg nga ci sa bët ne ñu ngi jéem a sàmm diine ci nit ñi ba yi ñëw di yàq diine ci nit ñi di def ci ñoom caay-caay ak mbonte ñu dox diggante nit ñi ak lool digal leen ko sax wax rek wax nga xam ne moo gën a yomb sax doo dégg ñu def ko digal dong ak tere nit ñi lu bon doo ko dégg ba pare yaakaar nañ nit warta wax dara ci diine lu dul ci ci ñoom lay jaar wala ci ñoom la koy jël mu bokkaat ci ba léegi tasaaroog njaaloo dafa sax jéggi dayoo léegi demal ci réseaux sociaux yi njaaloo bi ngóor jigéen gi ñaawteef yi ci nekk fiñ ci àgg niveau bi mu àgg mënoo ko sax xalaat léeg-léeg benn scandale am nga dégg yoo xam ne da nga naan yaakaaroon naa ne lii amul ci réew mi mais ni mu tasaaroo fu mu àgg ci jeunesse bi jéggi na dayoo te loolu ci li gën a mën a yàq ay jikko bokk na ci ndax boo gisee ñuy wax affaire ngóor jigéen njaaloo bu tasaaroo bu àggee ci benn niveau bi ci loolu rek lay yóbbu ndax gis nga ñaawteef ay escalier la rek ay niveau la rek nit ki day dem di àgg fenn fi day dem bu màndee ci yenn xeeti ñaawteef yi day dem di jéem a découvrir ji leneen foo ko natt weesu na ko mu bokkaat ci yi nga xamante ne dañ koy waxaat ba léegi ci ñaawteef yooyu mooy bu ñu demee ba valeur yi dañ jikko yi dañ bopp sa bopp gi fi nekkaat ci dëkk bi kenn yërëmul kenn ku nekk sa yitte mooy am alal ak noo ko mën a amee baax na yërëmante wuñ suñu biir loolu indi lan indi mettik dund ndax dund gi ci lim gën a tabax mooy suñuy échange ak suñuy jëflante ci wàllu njaay ak jënd ak la ci aju bu demee ba ñi yëngatu ci domaine boobu kenn ku nekk lii sa yitte mooy naa am maa ngi lor nit ñi loruma nit ñi ci li ma leen di jaay ndax baax na qualité bi baax na qualité bi baaxul sama yoon nekku ci wax naa dëgg ci li may jaay waxuma ci dëgg sama yoon newu ci yokku naa ko yokk gu jaaduwul yokku ma ko yokk gu jaaduwul sama yoon nekku ci bu demee ba nit ñi ay valeur yu mel noonu éthique bu mel noonu nekkatul ci ñoom ci wàllu njaay ak jënd ci wàllu transport ci wàllu domaine boo laal ku nekk rendi sa morom tëral ko rendi ko ak naan ci ndox mi nga yemale kenn yërëmul kenn yaa ngi yàkkamti moindre occasion pour la nga doon liggéey nga yokk ko bu ko nit ñi soxlaa rek nga jafeel ko di tegante fitna ak mbugal bu metti boobu noonu ci réew boo xam ne kenn ci ñun du xool moromam sax ba mu yàgg yërëm ko ne naa jéem a def benn effort envers lui pour yombalal ko dundam ku nekk na sama affaire baax ngay xool naa am sama alal yóbbu ko dem tabax samay bâtiment wala jënd samay oto yu rafet bu dee réew moo xamante ni patriotisme nekkul ci ñoom doomu réew mi bëgg seen réew yërëmante seen biir ba noonu la ñuy dundee dund gi day gën di metti di dem parce que kenn yërëmul sa morom yàlla yonente bi alayhi dafa waxoon ne arrahimuuna yarhamuhum arrahman irhamu man fi l ard yarhamkum man fi sama mu doon wax naan man laa yarham laa yurham ku dul yërëm kenn du ko yërëm da ngeen di yërëmante yàlla yërëm leen mais bu ngeen yërëmantewul yàlla du leen yërëm yërëmante googu nag moo fi nekkul dajale alal di pukkarew rek yàkkamte ay cérémonie jot li ñu tuddee ay cérémonie diine léegi dem fa di takk ay or di tabax ay kër yu rafet di di di bernde di di jënd ay ay nag ak ay nangam di tasaare ay xaalis di ko filmer di dugal ci statut yi te bu dee say mbokk jullit nekk ci réew mi di deew a xiif sa yoon newu ci ana yan action socio sociale la ñuy def ngir dimbali suñu mbokk jullit di nekk ci ay jafe-jafe dañuy toog di xoole pour ñun loolu état bi moo ko war a def suñu yoon newu ci yéefar yi gëmul yàlla sax soo demee seeni réew buñ nekkee ci ay ñàkk ak ay jafe-jafe nit ñi dañuy def ay association def ay mobilisation di génne seeni alal di dem ci nit ñi di leen dimbali di leen jàppale di di def yu mel noonu waaye fii kenn loolu yitte yeneen lañu yeneen yeneen moo nekk suñu priorité moo tax kon foog mu metti mu bokkaat ci tamit corruption bu metti corruption bu jéggi dayoo boo xam ne daanaka xawoo xawoo cee mën a mucc daanaka amuloo looy def lu dul corruption lan la jur lu mu jur mooy alal ji dootul tasaaroo ci façon bu équitable boo xam nit ñi dañ ciy dañ ciy jot ay nit ñoo koy jël yor alal ju jéggi jéggi jéggi jéggi dayoo di def lu leen neex te du mérite moo tax ñu am ko waaye mën a wuruj ak mën a corrompre moo tax ñu yor alal jooju ñeneen ña ca des toog du ñu yor dara nit dootul ñàkk jariñu dootul am ñàkk jariñu dootul am léegi day dem ba bu yàggee nit ñi dañuy dem ba nangu loolu gëm ne yëf yi du da ngay ñàkk jariñu ndax da ngay ñàkk sonn def loo mën moo xam ci njàng mooy jàng liggéey booy def dara doo ko am gis waa jële nga xamante ni tappaleeg wuruj dong lay liggéeyee yor alal dina gàñ loolu naqar ak métit ci xol lay jur ci peuple fi ay frustration lay indi beneen bi ci des mooy bu ko defee léegi dañuy daal di déstabiliser réew mi ak ni mu tëddee économie bi ci côté yépp ndax fu corruption dugg rek yàq ger fu mu dugg yàq jikkoy nit ñi lay njëkk a yàq laata muy yàq suñu économie ak suñu dund mu bokkaat ci ñi nga xam moom la ñu mujjee wax paris yi nga xamante ni tasaare nañ ko ba léegi ñu koy naqarluwaat paris sportif yi ñuy tasaare di ci nuur suñu suñu suñu xale yi di leen ko naxee comme xam nañ ni xale yi dañoo bëgg football léegi fi mu nekk ni football bi kàttum xaalis lañ ci dugal bu méttee méttee métti métti di ci pousse xale yu ndaw yi pour ñu dem di teg ak a parier pour carte xaalis ci wàllu football loolu war nañ ci yee xale yi mooy tundi ko looleen bis buñ ci laxasoo seen dund dina yàqu seen dund dina yàqu ndax jom ju ñu liggéeyee wala jom ju ñu jàngee lijjanti seen avenir dootuñ ko tal seen yitte yépp ci loolu lañ koy def lu ñu am ëllëg ko ñu jël ko def ko fu leen amal njariñ ñoom ak seen i waajur ak seen njaboot dootuñ ko def dañ koy jël dem carte yi ñu ko xaalis bu ñu demee ba carte boobu sori ci ñoom lool ci wàllu criminalité dong la leen di yóbbu muy ay xeeti ñaawteef yoo xamante ni ci lañ jëm te fi mu nekk ñu ngi koy tas ci suñu dëkk bi di ko publicité ci ci panneau publicitaire u mbedd bi ñu ngi ko ciy taf te ñan la ñuy waxal xale yi la ñuy waxal waxuñoo mag yi ndax boo xoolee ñi ñuy jëfandikoo sax ci publicité yi ay xale la ñuy jël ay footballeur yu siiw la ñuy jël yoo xam ne xale yi bëgg nañ leen ñu leen di publicité loo ay paris kartum xaalis boobu baaxul carte baaxul yàlla yàlla subhanahu wa taala ne seytaane moo koy jëfandikoo moom ak sàngara ngir indi yàqute ci seen biir kon bu fekkente ni ñun ay jullit lañu yoo xamante ni gëm nañ suñu borom subhanahu wa taala xam ne suñu mbaax ak suñu nekkin dafay jeexital ci suñu jàmm jeexital ci barkeeg suñu dund ak yëwan suñu dund nañ delloo si waat suñu xel suñu bopp nañ delloo si waat suñu xel suñu bopp delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala xam yàlla mooy kan ci ñun ñu gëm ko dëgg-dëgg ni ñu ko war a gëmee màggal ko diine joo xamante ni bi fonk yàlla wekk yàlla màggal yàlla amu ca roy yonent bi alayhi salaam nekku ca foofu diine newatu fa diine boo ci dindee màggal yàlla fonk yàlla ragal yàlla ak bëgg yonent bi alayhi salaam dëggal bëgg gi ci kaw di ko topp ak di ko roy foofu diine newatu fa leneen lu ñu fa mën a folklore la waaye diine newatu fa kon ñu góorgóorlu ci loolu bu baax suñu kéemtalaay kàttan jàng suñu diine tënku ci jéem a fexe yar suñu bopp yar suñuy suñuy ñoñ mu moo xam suñu njaboot la wala képp ku ñu yilif ci kaw mbaax yeewu ci àdduna bi ni mu tëddee ak nax yi ñuy nax ñun jullit ñi di yàq suñu société yi yàq suñu valeur yi yàq suñu ndaw ñi ñu yeewu ci loolu yee ci ndaw ñi mooy tundiku looleen lu ñu mën suñu suñu kéemtalaay kàttan li ci des mooy tàllal suñu loxo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yàlla sàmm ñu sàmm ñu suñu diine ji nga xam ni mooy suñu rëccuwaay fii ci àdduna ak ci àllaaxira yàlla nañu ko yàlla defal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qumu ila salatikum yarhamukumullah membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matérielam saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.